alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala mashhadi dhatihi wa mir'ati sifatihi sayyidina muhammadin markazi anwarihi wa manba'i asrarihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim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 ñii mu fekk nag ci safaanab jàmm yal na yàlla tuur leen jàmmam juyaatu ju sakkan jooja ba ñu génn ca jafe-jafe ya ñu nekk moo xam ña nekk ci seliri prison yi la wala ñi nekk ci hôpitaux yi la wala moo xam ñay sooxaale jàngoro la wala ñi nga xam ne sax dañoo amee ay bor ba mu teree leen a nelaw leb nañ te yaakaaruñ lu ñuy fayee ñu toog rek di xaar yàlla mi nga xam ne mu gën a gaaw a xettali ci ku koy xaar ñooña ñëpp yàlla na yàlla xettali leen tuur leen jàmmam ji di asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. may del siwaat nag ci kartanal yàlla di sof ak yow rek li ma doon sosoog yow ci julli waxoon naa la ci émission yi passé julleeg nañ ko doon préparé ca laabam ya moo xam laabu biti la wala laab biir la waxoon naa la tamit julli chariatul islaami bi julli yim xam limaloon naa la ci lu ëppoon ñeen fukki julli julli gu ca nekk ñoo bokk nuñ koy defee waaye seeni tur ya ak degré yañ doon rekk mooy wuute julli moomu nag laa lay bëgg a wax rek baat bi luxatan li muy tekki su paree ma wax la istilaahan ci jubóog boroom xam-xam yi nuñ koy déggee su ma ci bàyyeekoo nag danaa la wax tamit jullee ngëneel yu rëy yi nga xam ne tamit làmboo na ko julli daal ah boo jëlee arab yi ñu ngi koy tuddee as salaatu salaatu nag ala kulli xaal masdar la ñu jàng luxa ñoo ko xam masdar la ci fexel ñu tuddee salla moo tax ngay dégg ñu ne salla salaatan moom nag mooy tegtale ñaari mbir rek lay tegtale Euh, bu njëkk bi dana tegtale tàngoor tàngoor euh, baat bi cosaan li waaw la woon nga dégg ñi moo tax ñuy wax maanaam euh, sa ñuy wax maanaam sàlluwa waaye fekk tamit maanaam ñu jël waaw nga soppi ko muy sàllaya su ko defee nag kooku moo daan tekki njaar Euh, moo tax araab yi da ngay dégg ñuy wax ne salaytul uda yaa gi nekk ci fe fexel ji faayil ji moo lay xamal ne cosaan la maanaam yaa la woon ndax bépp baat bu la réeree boo ca dugalee taawu faayil wala nga def ko tasxiir rek danga xam lan mooy cosaanal baat ba moo tax kon salaytu la ñuy wax arab yi dañuy wax ne salaytul uda bin naari man daal dugal naa bant bi ci safara wi mooy ñi doon nit ñi nga xam ne dañoo yore ay bant yu tooy bëgg koo jubbanti di ko lakk ci biir safara wi su ko defee tamit nag bu demee ba mu tàng ngay jubbanti loolu lañ ko daan wax mën naa nekk tamit jël ay mat yu wow di ko dugal ci biir safara wi di ko xambee muy lakk yooyu yëpp maanaam yi dugal na ko moo tax ñu wax sallaytu luuda binnaar yi Euh, bu ñu waxee nag asalaau waxuñ salaatu mais salaau mooy li nga xam ne moom la ñuy njaaralee moom la ñuy taalee maa yustala bihi wa yuzka bihi naaru lañuy njaarale safara wala ñu ko cay taalee la tuddee salaau kon loolu mooy maanaam mu njëkk mi ci luxa moom salaatu maanaa ñaareel mi nag dana tekki ñaan léegi-léegi ñu ne salaatu fekk ñaan lañ ca namm moom la yonantu bi wax ci xadisam bu siiw boobu mu ne ida duiya ahadukum ila taamin fal yujib fa in kaana muftiran fal yakul wa in kaana saaiman fal yusalli ay fal yaduu lahum bil xayri wal barakati yonantu bi nee ku ñu invité ñam nga wóolu ci waxin ña ko togg wóolu ñam wañ togg du lu la sariya tere waaye waaye demal nga wuyu invitation ba ndem lu xaraam nekkut ca bu la fekkee xóoruloo lekkal euh, bu la fekkee nga woor nag ala kulli xaal ñaanalal kala defal teraangaay ñam woowa yiwu yàlla ak barkeem kon fal yu salli la wax fal yu salli jooju bi maanaa fal yadu lahum bil xayri wal baraka kon nag salaatu dana tekki ñaan salaatu dana tekki njaar kon ñaar yi moom lay tekki ci luga waaye nag suñ ko waxee istilaahan ci dégginu boroom xam-xam yi ci sharia moom daal ak jaamu yàlla la gu yàlla yoonal ñi di ko ko jaamoo ci taxawaay bu ànd ak jàng suñu demee ba ci kanam ñu rukkoo sàbbaal suñ demee ba ci kanam ñu siggiwaat taxaw suñ demee ba ci kanam ñu root su jóot toogaat dóoru su jóotaat nii daal nga koy def la ca gën a bëri di ñeenti rakka la ca gën a diggu dóomu di ñetti rakka la ca gën a néew di ñaari rakka lii daal mooy julli istilaaxan ci juboo borom xam-xam yi euh, boo demee imaamu Maaruudi day wax ne sax moom aqwaalun wa afaalun mufattahatun bi takbiri muux muxtatamatun bi taslimi bi sharaita maxsuusatin ala tafsilin ladal mazahibi mu ne daal julli ay wax ak i ay jëf yu ñu hubbee kabaar di ko tëjee sëlmal julli takbiratul ihram moo ko hubbi muy allahu akbar assalaamu aleykum moo koy tëj ñi di ko defee nag ci ay charta yuñ ko jagleel te yooya borom mazahib imaamu malik imaam abu hanifa imaamu shafii ak imaam ahmad ibnu hambal kenn ku ci nekk dana wax tafsil yooya nam ko déggee waaye nag ala kulli haal julli bu ñëwee lim ñëw ci alquran ci ay am soo ko jëlee moom julli juróom-ñeenti maanaa la ci alquran benn bu jëlee la muy tekki ak la morom ma di tekki du benn te benn bu ci nekk aayab alquran la kon julli alquran dana ko wax namu ca ñaan. moom nga dégg ci alxuraan yàlla ne inna salaataka sakanun lahum salaatu jooju ñaan lay tekki mooy sax ñaan dafa nekk luy dalal seen xel yi ñoom ñooña loolu mag ngi ca suratu ba su ko defee ci aayaab téeméer ak ñett waaye tamit julli dana ñëw amee maanaam istighfar yàlla wax ko fekk ba mu koy wax istighfar la ca namu moom nga dégg mu ne yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi ci firéem ñenn ñi mooy ne yéen ñi gëm yàlla jéggalul leen yonantu bi ci aw xeetam yonantu bi moom mucc na manta def sax bàkkaar mënu koo xiraat mu koo nar waaye nag bàkkaaru xeetam wi tiis na ci moom ba daana taxaw di wax xeet wi ne leen safara de ba ko yàllay bind taxu leen yéen sama xeet wi waaye li ma jaaxal nag yéen ngay daw di ca dugal seen bopp loolu boo ko bëggee dégg xam nga ne kuy taal taalab safara gunóor taxut nga koy taal waaye nag gunóor yu repp yëpp ña ngay daw di daanu ca biir safara wa kon yéen sama xeet wi taxu leen yàlla bind safara waaye li ma jaaxal bët bu set yéen ngay wax lu leen cay dugal bët bu set yéen ngay jëf lu leen cay dugal bët bu set yéen ngay fas leen cay jugal moo tax ñun mu digal ñu nañuy jéggalul xeetam wi waaye moom moom li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zambika wa maa taaxara la ko yàlla defal euh, bu ko defee tamit nag buy ci firéem Cheikh na Tijaani bañ ko laaje yàlla ne inna allaaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi lu ci yàlla namu ñee mu fekk boroom xam-xam yëpp dooñ wax ne daal julleeg yàlla ci yonantu bi moom yërmande la julleeg malaaka yi ci yonantu bi ñaan la jullee doomu aadama yi ci yonantu bi nag moom jaamu yàlla la euh, Cheikh na Tidiane mi nga xam ne waliyoob yàlla bu mag la di xutbul maktoom di barsaqul barasiqi yàlla may ko ñaareel fi dégg wali yu yem moom foofa la déggam commencé jëm kaw mooy xemukaayu wali yu bu ne moom mooy tàmbali waayam ba daana wax ne xadamaaya haataani ala raqabati kulli waliyin min ladun aadama ila nafqihi suur mu ne daal man daal ni boroom xam-xam yi ma jiitu woon waxee ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ak ni ma déggee duñ benn julleegi yàlla ci yonantu bi daal buñ ko jéem a lijjanti xamuñ ko yàllaa ko xam moom ma koy def amma nag julleeg malaaka yi ak julleeg doomu aadama yi ci yonantu bi ñoom ñaar ñëpp ñoo xem benn martaba bu mu ci ñoom ñaar ibadatun la mooy ak jaamu yàlla la waaye julleeg yàlla nag suñu yoon nekku ci xamuñ ko toppatoowuñ ko moom kon noonu la ko déggee kon salaatu ci waxinu borom xam-xam yu njëkk ya dana ñëw di tekki istighfar moo tax alquran ne yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi kooku ma nga ca suratul ahsaab aayaab juróom fukk ak juróom benn waaye julli tamit dana ñëw amee maanaam yërmande alquran dana ko waxta ba mu koy wax yërmande la ca namu moom nga dégg mu ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu mu ngi ca maanaam 43 muy ñeen fukk ak maanaam ñett julli dana ñëw yàlla wax ko ci alquran fekk mi ki ci namm julleeg ragal julleeg ragal nag ñi jàng fiq ñoo ko xam jullit ñi buñ demoon attaqué ji yéeféer ya ca distance bi nga xam ne fi ñu déplacé ak fa ñu leen fekk mat na quarante neuf miles soo ko doon jël ci suñ kilomètres yi mat na soixante dix kilomètres loolu ci ngay soo door a sañoo wàññi ak julli mooy diggante Ndakaaru ak Thiès. mat juróom-ñaar fukki kilomètre su boobaa nag comme jullit ñi ñoo leen fekk foofa te distance mën a soixante-dix kilomètres ah buñ toogee nag di séentu ñëw ak xéeféer yeeg te wóoluwu ñoo jullee ndoor ñoom ñooña ndax buñ jullee ndoor nekk ca bu leen xéeféer fekkee gaw leen rey leen ah su boobaa kon charia day wax ne xaaj leen mbooloo mi ñaari xaaj te ngeen wut jenn ilimaan comme jullee gi wàññi la na ilimaan ji taxaw ca kanam gannaaw bi ñu ko liqaamalee buñ xaajee soldaar yi fekk ñu deux mille benn deux benn mille ba kàbbaar ca gannaaw ilimaan ja ilimaan ja jàng fatiha ko saar rukoo ak sujoot ànd ca ak ñoom bu paree jug taxaw comme benn rakkaa kenn du ca toog bu taxawee nag ñoom ñi mottalil seen bopp benn rakkaa kenn du jiite kenn kenn ku yaay jàngal sa bopp fatiha ak saar ak nga rukkoo sujoot taaya sëlmal dem téye ji ngànnaayu ña la doon garde ñooñee nag doon garde muy beneen mil bi nag door a ñëw nag ci gannaaw ilimaan ñoom tamit fekk ilimaan nga taxaw waaye dafa ne mekk waxul dara ñoom nag buñ kàbbaaree ca gannaawam ilimaan door a jàng fatiha ku saar rukkoo sujjoot ñaareelu rakkaam jeex na mu taayee sëlmal ñoom nag ñu door a jug kenn ku ci nekk mottalil sa bopp benn rakkaa booba mu rawee woon la kenn du roy ci kenn su fekkee julli ga julleeg matal la yéeféeri ñoo ñu fekk si kon nag kuréel bu ne ilimaan ñaari rakkaa la lay jiite comme julleeg tusubaar la mbaa muy saan mbaa muy gee bu amee ñaari rakkaa bu ko neexee day toog foofa ñii na ngeen dañ koy tànn bu ko neexee toog bu ko neexee taxaw ala kulli xaal bu toogee wala mu taxaw daal moom gannaaw ñaari rakkaaya jeex na rek yóbbal ba fam mu àndoon ak ñoom jeex na nañu jóg ñu mottali seen boppu ñaari rakkaa yi des kenn du roy ci kenn su ko defee nag kenn du roy ci kenn nga taaye sëlmal dem téye ji ngànnaaya su fekkee dañoo fekkoon ilimaan toogoon ilimaan door a jug nag ànd ak kuréelam ñaareel ba ba ñu ñëwee mu jiit leen ñaar rakkaaya taaye sëlmal ñoom kenn ku nekk mottali sa bopp ñee nag su fekkee dañoo fekkoon ilimaan taxaw te ñee ñoom mottali na seen bopp pare ah kon nag da ñëw rek kàbbaar ci gannaaw taxawaayu ilimaan ja boo demee xalil dir dir wala nga dem ci rëhoon yu dafa ne buy julleeg maanaam matal su boobaa bu amee ñaar rakka bu ko neexee toog bu ko neexee taxaw kon loolu la ñu tuddee salaatul xaw fii bu dee julleeg timis la nag moom bu amee ñaari rakka lay ànd ak kuréel bu njëkk ba kuréelam ñaareel ba mu ànd ak ñoom benn rakka ndax foofu mooy teeruwaay bi foofu mooy terminus bi terminus bu njëkk bi ju timis ñaari terminus la am terminus bu njëkk ba ñaari rakka la terminus bu ñaareel ba nga xam na nag fa lay kaaru dem dikki bay yem ku wàccut kaar bi yegg na kooku mooy ñetteelu rakka ba kenn du ko passé kon kuréel bu njëkk ba ñaari rakka lay ànd ak ñoom ñoom ñu jug mottalil seen bopp benn rakka ba kuréelam ñaareel bi ñëw mu ànd ak ñoom benn rakka ba ñoom ñu jug mottalil seen bopp ñaari rakka yi leen rawee woon kon loolu la ñu tuddee salaatul xawfi yàlla dana wax salaatu ci alquran namm ci salaatul xawfi moom nga dégg mu wax yonentu bi suratul nisaa yi aayaab téeméer ak ñaar ne ko fa ida fa aqamta lahumu salaata ay salaatal xawfi kon salaatu googu mi ngi namu salaatul xawfi léegi-léegi alquran tudd salaatu namu ci salaatul janaasati mooy julleeg néew xam naa lim génn àdduna tax ñu tuddee ko néew ndax loo rëyoon rëy boo xasee dee néew nga waaye néew googu tamit duwut lu simple rëy na ndax boo jëlee xarafu niiw nga siifur ko 66 la lay jox nga jël allahu nga siifur ko mu jox la 66 moo tax ñuy wax ne delloo leen néew bi ñu delloo ko ca boromam dénk ko ko kon jël nañ 66 dénk ko 66 kon léegi-léeg yàlla wax salaatu fekk janaasub la ca namu moo tax nga dégg ci alquran mu ne walaatu salli ala ahadin minhum maata abadan suratu tawba aayaab juróom-ñett fukk ak ñeent salaatu googu ni walaatu salli mu ngi ci namu julleek maanaam néew ci ah dégg nga Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul munaafiq bi moo na génnoon àdduna dee nekkam néew kom nag bu yonent bi daan dem xare daana dem daana ñëw ca jàkka ja di julli chariatul islaamiya zahir lay xàtte waaye li ci biir baatinam yoonam nekku ca dee na nag yonent bi ne nañ sang nañ sàng def nañu lépp mu ne moo koy jullee Omar ibnu Xataab ñëw nag taxaw ne ko doo ko fi jullee kii naa fekk piir la la mu doon feeñal ak lim doon nëbbu nekkul benn li mu nëbbu ci xolam mooy ak kéeféer la muy nëbbu mooy bañ la li muy nëbbu mooy bañ jullit ñi li muy feesal nag li muy feeñal nag mooy na ñun la ànd ak ngir ragal jaasi rek waaye duhut jullit yonent bi ne bàyyil ma jullee ko mu ne ko doo ko fi jullee ba muy ñetti yoon yonent bi nag ne ko Omar dama lay yëgal ne man la yàlla yónni te xam nga ko bàyyil ma jullee ko su ma jullee gi su naree dem safara du ko jariñ dara waaye tamit bu naree dem aljana dana ko dimbale du ko wàññi dara su ko defee nag yonent bi jullee ko aaya ja wàcc ànd ak sayduna Omar ne a ah, yow yonent bi waroo ko woon a jullee wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi loolu liñ cay déggee mooy léegi-léegi njaboot xam lu kilifaam xamut ndax boo nekkee kilifa mënoo nekk ci biir nekk ci biti dangay tànn nekk ci biir njaboot gi nekkal la ci biti li ci biti nag ñi ci bitee ko xam looloo waral la ko xamar njaboot la ku nekkoon ci biti xam na li ci biti lu yonentu yàlla Muhammad xamut sallallahu alayhi wa tax mu ne ko kii baa ko xam pire naa fekk pire la doo ko fi jullee ba yàlla wàcce aaya Omar la ànd ak te loolu bëri na ci alquran ayaat yu bari ñëw di ànd ak Seyduna Omar loolu boo demee ci sëñ Tuubaa Xaadimu Rasul wax na ko boo demee ca e, raayam ba ndeysaanam ma ngi ko cay wax boo demee ca maam El Hadj tamit téereem ba ñuy tuddee xilaas di téere bu ama am solo di téere bu barke moom tamit wax na ca limu aayaat yi wàcc ànd ak sayduna omar kon loolu kon salaatu googu janaasatu la ca namm ci la fuqahaaw yee jëlee ne koo bokkul ak diine ngeen bokkuy dund fii man ngeen a jëflante bépp jëflante bu sa diine nangu bu la lebee lebal ko bu ñàkkee dimbale ko bu feebaree seeti ko bu amee xew bànneex ndokkel ko boo xamee xewu safaan ba jaal ko jaal ga nag mooy dem rekk ne ko bokk nañoo yow tiis wi waaye bul ko ñaanal yërmande yàlla ndeem ki nga koy jaal duwut jullit waaye bu dee xasee am nag kenn ku ci nekk dañ lay bàyyi sa ñooñ diine ñu toppatoo sa mbir ndax diine kenn du ci maslaa alale yàlla la su boobaa nañ la bàyyi sa ñooñ diine bu ñuy sang ñi sang bu ñuy sang ñi sang bu ñuy jullee ñu jullee moo tax yow miy jullit boo fi amee nag dëkkandoor wala mbokk wala xarit ku mën a doon te duxut ab jullit bu xasee dee amoo droit di fekkee fañ koy waajalee di ko yóbbu ca xabru ba buñ koy yóbbu tamit ca fay xabru ba waroo ca dem moo tax yàlla ne wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan waaye mu ne ko wala taqub xabri yi kon lii salaatu googu wax na ko fekk salaatul jinaas la ca namu léegi-léegi mu tudd salaatu namm ci salaatu safar alquran wax na ko fa lay laysa aleykum junahun an taqsuru min salaati salaatu googa julli julleeg tukki la ca namm li yàlla ne bàkkaar nekkut ci ngeen wàññi seen julli yi su ngeen tukkee tukki ma nag ay charta la lii rek la alquran wax fuqaaw yi ñooy ñëw di ko farañ fàncee tukki mi faw mu mat soixante-dix mel ni diggante Dakar ak Thiès tukki mi faw da am yéene sax fa lu gën a néew ñeenti fan waaye ñeenti fan jëm kaw foo koy sax dootoo wàññeeti sooy dem nag ba ba ngay yeggee julli gu la fekk ci yoon yu mën nga koo julli wàññi ko sooy retourné wu di ñib si fekk ba ngay yeggsee julli gu la dab ci yoon yi mën nga koo wàññi waaye boo xasee yegg nag fa ngay tukki te fas nga yéene sax fa lu ëpp ñeenti fan su boobaa nag dootoo wàññeeti julli ya dafay bokk ca charta ya tamit dëkk booba ngay tukki mu mat soixante-dix kilomètres te amoo yéene sax fa lu ëpp ñeenti fan na fekk dëkkoo fa waaye kuy dem seen dëkk kay dootoo wàññeeti euh, julli yàlla dem nag ci yoon yi mën nga koo wàññi waaye tamit kuy dem ci dëkk boo xam ne am nga fa soxna te mos ngaa wéet ak moom di demaat ca place ba doo wàññi su fekkee nag euh, amoo fa soxna mën ngaa wàññi ba fa am a tamus loona wéet mën ngaa wàññi waaye boo xasee wéet nag tumuraankee too fa kon fuqaaw yi loolu lañ cay farañ fàncee foo nar sax daal di fa julli ñaar fukki julli jëm kaw dootoo wàññeeti kon alquran dana tudd salaatu fekk salaatu xasri la ca namm moom nga dégg mu ne le fa laysa aleykum junaahun an taqsuru min as-salaati kooku nga ca suratu nisaa yi aayaab téeméer ak benn dana tudd julli tamit namm ci jullee xeet ya jiitu woon mel ni xeetu yonantu yàlla noox wala xeetu yonantu yàlla ibrahima wa wala xeetu yonantu yàlla saalihoog soayboog yonantu yàlla isa moom nga dégg alquran ne wa awsaani bi salaati wa zakaati ma nga ce maryama aaya fanweer ak benn kon foofu julleey xeet ya jiitu woon xeetu yonantu bi la ca namm te ki wax loolu ba yàlla di ko nettali mooy yonantu yàlla isa kon ndeke julli xeet yëpp a ko doon def mu ne sama borom digal na ma naa taxawal julli sama borom digal na ma tamit naa joxe asaka dana tudd julli tamit namu ci ay jàngu ay kanaayis yi nga xam ne yahood yi ñoo fay dajee di def seen ak jaamu yooyu tamit dana ko wax moo tax mu ne wa biyoon wa salawaatun kon salawaatun jooja seen kii la ca namu su ko defee tamit dana tudd julli namm ci julli juróom yi ngeen xam te subaar jiitu ca moom la yonent bi njëkk julli ba mu ko ca gàddaay ga jibril wan ko ni ñuy jàppee jiite ko ko ñaari yoon la ñëw fi première moxtaar mi commencé ak fi mu yem naka noonu tamit jawaat na tàkkusaan ñaari yoon waaye timis benn yoon la ñëw gee ñaari yoon la ñëw suba ñaari yoon la ñëw te yooyu yëpp danaa ci ñëw kon alquran dana tuju julli fekk ca julli juróom yi la ca namm moo tax mu ne wa aqimu salaata wa aatu zakata wa aqimu salaata foo ko jàng ci alquran rek julli juróom la ci yàlla namm kon juróom-ñeenti anam yi di juróom-ñeenti maanaa yi moo nekk ci julli ci alquran kon bul dégg julli rek foog ne nag julleeg juróom la julli dafa bari ay tekkin ni baat bi ni muy bëree ay tekkin luxatan ni la tamit baat bi istilaaxan ni la bëree ay maanaa yoo xam ne ni ëmb na ko kon nag jullee ngoog amul benn yonantu bu jiitu woon ci yonantu yàlla yi yonantu yàlla biir Seydina Muhammad lu dul danga daan julli ak saw xeet wa yàlla ak ñuy nettali yonantu yooyu ak seen julli ya tudd na yonantu yàlla zakariya wane ne jullikat la woon moo tax alquran ne fa naadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi loolu ma nga ca sóoratu maryama su ko defee tamit tudd na ko kon wane ne jullikat la woon dégg nga de mu ngoog mu ngi koy tudd ala imran foofu ala imran ma nga noona tamit tabaarakallaahu kon yonentu yàlla Sakariya jullikat la woon tudd na yonentu yàlla Ibrahima ah, moom tamit jullikat la woon moom nga dégg mu wax yàlla wax ne maanaam ba muy ba mu ko ba muy dëkkal ba ko yàlla dëkkalee Makka mu dëkkal fa soxnaam ak njabootam lu mu ñaan rabbana inni askantu rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin gayri zi zar'in inda baytika al muharrami rabbana li yuqimu salaata kon gis nga ko yow yàlla daal dëkkal na sama njaboot ci xur wi nga xam ne du xur wu nangu mbay ci sa néeg bu màgg bi di ci place bu ñu xormaal bile di néeg bu ñu xormaal bile lu tax ma dëkkal leen fi yow yàlla ngir nañ taxawal julli kon yonent yàlla daan a julli ak xeetam wax waxaat na ko tamit ne alhamdulillahi alladi wahaba li ala alkibari ismaila wa ishaqa inna rabbi la samiu duaai mu tekkit rabbi jaal li muqima salaati wa min zuriyati rabbana wa taqabbal duaai rabbana xfir li wali walidaya walil muminina yowma yaqumul xisaab kon jullee ngoo am na ca moo tax mu ne yow yàlla daal maa ngi lay sant yow mi ma may ci sama mage doom gi ñu tuddee Ismaayila ak Yaquba maa la ko ñaanoon yow kuy dégg ñaan gi ya yow yàlla daal yàlla nga ma def maag sama njaboot gi ñu nekk di ñuy taxawal julli kon ndeke Ibrahima ak xeetam wa daanañ julli gis nga ko timit tudd na yonantu boobu di Ibrahima waaye tamit yonantu yàlla Suaybu dafa daan jullee xeetam wa moom nga dégg nitam ña di ko ñaawal naan ko qaaloo yaa bu asalawaatuka ta'muruka an natruka maa ya'budu aabaa'unaa aw an naf'ala fii amwaalinaa maa nashaa'u innaka la antal xaliimu rashid ne ko daal yow Shuaybu ndax sa julli yu bari yi moo lay digal bàyyi li doon suñ maam yi suñ bàyyi suñ maam yi jaamu nga ne daal yu bëri yi moo digal suñ xalal lu ñu neex duñ ko ca def su ñu neexee jënd sàngara naan nga ne du fi am suñu neexee leble dërëm ku ñaar dërëm nga ne du fi am waay waay yow daal ku lewet nga yow daal tabaarakallaahu nekk nga ku féex a ci waxin kon ndeke julli mu ngoog soxay boo xeetam wa dañ ko daan def moo tax mu ne ko asalawaatuka taamuruka gis nga ko timit yonentu yàlla Isa jullikat la woon alquran wax na ko ba mu ne inni abdullahi aataaniyal kitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bi salaati wa zakaati ma dumtu xayyan kon sama borom daal man de maa ngi seede na jaamab yàlla laa bu ko nangoo jaamu jox na ma téere bu ñuy tuddee linjiil def na ma ma dib yonantu def na ma may kuñ barkeel fu ma man di nekk dénk na ma naa taxawal julli ak di taxawee joxe asaka feek maa ngi dund gis nga yonent yàlla Ismaayila tamit li ko yàlla taggee wa kaana ya'muru ahlahu bi salaati wa sakaati wa kaana inda rabbihi mardiyan kon ñi ñëpp ay yonentu la joon yu jiitoon sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta kumu ñi yaa nga daan taxawal julli di ko fonk di ko digal sa xeet wi tamit ñi di ko def seen julli ya ak suñ julli ya nag nekkut benn ñoom seen julli mooy ñaari rakkaa suba ñaari rakkaa ngoon lii rek la moo doon seen julli moo tax yonent bi bi mu fi bàyyee koo def isra continué dem defi miraaj njëkk muy defi loolu daana julli ci sarihab yonent yàlla ibrahima ñaar rakkaa suba ñaar rakkaa ngoon dem gim dem nag ñu yëkkati julli jox ko ko tekkiwut julli lañ ko jox waaye dañ koo jox limu xeetu julleem wi xeetam wi seen limu julli ñaata laak nan la demee loola lañ ko jox waaye duutoon jëmmi julli lay julli ndax fi la ko bàyyi daana ko def léegi nag jullee ngoog yonentu yëpp ci nekkoon gis nga yonentu yàlla noox sax dafa tabaxoon jàkka ngirak ak julli moo tax mu ne rabbi firli wali walidaya wali man daxala bayti bayti ay masjid yi gis nga tamit yonentu yàlla sa kër yaa jàkka la defoon moo tax alquran ne qaayimun yusalli fil mihraabi yusalli fil mihraabi la wax kon mihraabam ba mooy li nekk ci kanam jàkka ji fa gën a kaname ca jàkka ja ñaareel moo cay gën a taaru imaam di fa taxaw foofu la tuddee mihraab gis nga mihraab bi mi ngi bàyyi ko ci baatam xar bu rek xare moo tax boo fa taxawee di jiite yaa ngi ci xare de yaa ngi ci place ab xare waay de seytaane mi ngi taxaw pour xeex ak yow sa bakkan bi mi ngi taxaw xeex ak yow naa ngi taxaw ngir xeex ak yow bànneexu bakkan taxaw xeex ak yow seytaane ngi taxaw di xeex ak yow ak bakkan bi mën naa fexe ba nga gis ci sa bopp ne maa ngi nii ni jumaa ji rëyee man mi maa am jaay di ko jiite maa fi yore xam-xam bu ko war a mën a jiite bakkan yàqal na la sa bànneexu bakkan bi place bi nga nekk xarewaay la mën na laa yàqal te xam nga di julli nga gis sa bopp daraja ja su ko defee tamit au lieu que nga bokk ca ñay dundal jàkka ja waaye nga bokk ca ña koy dundee rek heure bu nekk yaa ngi xiirtal nit ñi di yalwaan jël jàkka ji def ko entreprise rek bànneexu bakkan la ñëw leen ci liggéeyam jàkka ji rek te du pare mukk waaye waay xanaa nga ne ñëw leen ci liggéey yëpp ñuy liggéeyal jàkka ji bokk nga xaw a nga xaw a soppi kàddu ya siixa ba waaye toujours ñëw leen ci liggéey yëpp jàkka ji rek di ca jiital nit ña te yow doo ca dugg ba mel ni suñ mbokki apprenti yooya ca car rapide yaag njaga njaaya ku wàcc ndeysaanam are buñ toll danañ wàcci ngir ak seen laay bi rek seen ak woyaf fu client nekk ñu ñëw fexe ba bamax la maire duggal papa ji duggal bu ñëpp duggee nag ñoom ña nekk ca biti ndeysaanam di lang duñ néeg nañoo sax jël place bu ñu war a mën a toog kon yaa dugal ñëpp te nekk ca biti loola nag bokkut ci jikko yi limaan ju baax ndax loola bànneex rek moo la koy toppaloo àdduna timit ma nga taxaw pour xeex ak yow sa place bi xeexu waay la mën na laa xirtal ci daje mën na laa xirtal ci dajale nga bokk ci jamaa maalan waxadadahoo rek kese di ca dund kon jullee ngoog moom julli nag foor gi mu foor laaw moo tax boo demee ci alquran tudd na julli juróom ñaar juróom benn fukki aaya ak juróom moo ñëw ci alquran di tegtale julli buur bu day ni yàlla lum digle wenn yoon rek def ko war na rawatina loo xam ne tudd na di ko digle di ko baamu ba mu mat juróom benn fukki yoon ak juróom muy 65 tolloog limab lillaahi limab lillaahi daal moo tolloog li ñëw ci alquran ci julli boo jëlee hadis yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahadis yi ci wàcc téeméeri hadis la ak juróom benn fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñett ñoom ñoo nga ñoo ñëw muy maanaam euh, cent soixante-dix-huit ci ay hadis ñoo ñëw ci julli yoo xam ne lépp yàllaa ngi wax ne yonentu baa ngi wax ne julli leen fonk leen julli ku bàyyi julli lii la cay fekk ku topp julli lii nga cay amee ba mat téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom-ñett asaar yi ci am nag ci diggante saxaaba yeeg taabiina yi soo ko jëlee dana la jox juróom-ñaari asar juróom-ñaar muy set yoo xam ne ni benn bu mën ngaa wax ne Aboubacar def na lii ci julli Omar ibnu Xataab wax na lii ci julli Sayduna lii wax na lii ci julli demeet ba mat juróom-ñaar. yoo xam ne benn bu ci nekk bokkut ak sa morom kon julli foor na téeréeb yàlla bii di alquran saar wa ca gën a gudd muy suratu baqara moo ca gën a gudd moo ca gën a guddal la ca nekk ci ay xatte nekkul ci benn saar waaye tamit aayaat yam ëmb benn saar ëmb ko moo ca gën a kawe tamit ci téeréeb yàlla bi yàlla daal ba mu cay commencé ñaari aaya ñett rek commencé na di wax julli ba mu ne daalikal kitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqiin allazina yuminuuna bil xaybi lu mu ca teg wa yuqiimuuna salaata mu tofal ca nag door wax ne wi maar saq naa am yunfiquuna door a ñëw kon jullee ngoog boo demee ca ruuxul bayaan dafay wax ne aaya aayaat yooyu la ñuy gàtt-gàtt hudan lil muttaqiina allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqiimuuna ma mimmaa razaqnaahum yunfiquuna kenn ku ne ci ñeenti màndarga yooya kenn ku ci nekk benn mandarga la ci ñeenti saxaaba yonent yàlla muhammad yi sallallahu alayhi lañ ci ragal yàlla waaye ragal yàlla nag abubakar siddiq moo ca man ñëpp moo tax moo moom hudan lil muttaqina saxaaba yëpp jàmbaar lañ ci gëm yàlla gu dëgër Omar ibnu moo man ñëpp ci gëm yàlla moom moom allazina yuminuuna bil xay bi saxaaba yëpp jàmbaar lañ ci julli waaye Usmaan ibnu Affaan ca man ñëpp moom moom wa yuqiimuuna salaata saxaaba yëpp jàmbaar lañ ci duddale joxe seen xalal ci wàllu yàlla waaye nag sayyiduna Ali wa ca man ñëpp kooku moom moom wa mimmaa na yunfiquuna lépp suñ jamono ji nag wa mimmaa rasaqnaahum na moo gën a bëri su ko defee nag kenn ku ci nekk ci lii ma wax tamit aayaat yi koy tegtale di ko firndeel ma nga ca euh, su ko defee ku mel ni Seyduna Aliyu yàlla tagg na ko ci mën a joxe alal ba gis nga ko xaddiyatoom bu siiw boobu ci bi doomam ja feebaree mu nisar yaayam nisar ñi woor ndey saanam ba ngoon jot rek benn miskin ñëw taxaw ñi gedd ndogu la jox ko ko ñi wooraat ñaareelu fan ba benn jirim ñëw ñi gedd ndogu la jox ko ko di yalwaan ñetteel ba nag benn pirisu ñu taxaw ñu jox ko ko taxan ak lañ ko koy jox lépp dañu ko wax rek innama nutimukum li wajhillaahi laa nuridu minkum jazaan wala shukuran kon nag ñàkk ba ñëpp xam na da ngaa ñàkk nga tabe ba ñëpp xam ne da ngaa tabe yombut moo dala Aliyu ku ñàkk la woon bokk na ci ñi gën a ñàkk ci saxaaba yi waaye li muy ñàkk-ñàkk bokk na ci ñi gën a tabe si nga ko tamit lu mel ni taxawal julli saxaaba yëpp góor lañ ci Seyduna Seyduna Usmaan kenn mënu ko ci bët bu set daal daana naafile la muy war a naafile ci guddi gi gannaaw bi mu defee gexe ba pare mu def nag naafila ba mu des nag safaa mu julli ñaar rakkaay safaa ba mu des witar mu jël nag kaamilab yàlla bi doree ca baqara alif lam mim dalikal kitaab gannaaw fatihatul kitaab ñëw ba ci minal jinnati wa ci benn taxawaay mu witaree ko kaami mu ko kaamilab yàlla bi bu set daal kaamil la daan witaree ña ko ca toppoon tam mu daar yi ca la bokkoon moo tax alquran ni ko wa taifun min alladina maaka yàlla xam na ne yaa ngi nii di fanaanee julli waaye am na ci sa saaba yi ab kuréel bula la topp ca loola ñooñu nag sayyidina Usmaan moo leen jiitu woon saxaaba yëpp góor lañ ci ngëm waaye Omar ci man ñëpp keroog ba mu gëmee ne lislaam am doole ndey saanam ku bañoon yonantu bi daanu wax kàddu yu ñaaw jëme ca moom di jëf-jëf ju ñaaw jëmee ca moom waaye ndeysaanam rambaaj kat moo ko rambaaje ba tax mu dugg ci diina ji ci ngay déggee ne rambaaj toujours lam bëgg du xam safaanab lam bëgg rek mooy am benn rambaajkat bu góor daal moo dajee ko Omar muy dox ci mbedd màkka yi mu ne ko li ngay bañ bañ yoruntu bi la muy xoote xet na sa kër sa rakk saydatuna Fatima bintu Xataab dugg na ci diina ji Omar mer départ fa dëgmal kër ga ñëw fekk ñoom ña nga tëj buntu ba ndax ku mosoon a tuub rek yonent dafa lay boole ñaar ñu lay teete di la wéttali di la jàngal sa diine ñu ñëw rek Omar fëgg ñu ne kooku kan la mu ne man la ibnu Xataab di Omar ibnu Xataab ah ca la jëkkër ja moom daw ñu ne dugg ca lal ga ñenn ña dafa dafa sàngoo benn mbàjj ñeneen ña tasaaroo ndeysaan kenn ku ne foo mën a làqatu ci néeg daal yaa ngi fay làqatu ngir ragal Seyduna Omar jëkkër ja ndeytaan Saïd ibnu Zeydin la tuddoon mu fëggaat buntu bi rek forcé ko nag rakkam ji nag di jigéenam bi di Seydatuna Fatima gannaaw ba mu làqee téere yañ doon jàngee mu ubbi buntu ba ba mu ko ubbee rek Omar ne lu ngeen di tëju di murum tulu ñi bañ koo tontu mu forcé leen ñi bañ koo tontu mu dóor jigéenam ba far xaañ ko deret ja sotteeku te arab nit ñu ragal deret lañ mu gisee deret ja rek mu toog nag ci lal bi ndeysaanam rus ndax nag sa xol bu la forcé ba nga def loo warta def boo cay pare rek da nga sa conscience mooy ñëw yedd la bu la yeddee jëriñu mu yeddaat jëriñut bu yàggee day xaru bu xasee xaru nag dootoo amati gàcca moo tax lay li ëpp réew yi amatuñu gàcca seen conscience moo dee dafa leen a jéppi bi na xaru ndax léeg-léeg nga këpp kees alali askan wi doo ca am gàcca léegi léeg ngi dàqe ci jabari jàmbur doo ca am gàcca léeg-léeg nga trompé doomi jàmbur ëmbal ko tey xulli say doo ca am gàcca léeg-léeg nga wax wax joo xamee ne nii ay kàcci kese la bu doon montagne ku ca taxaw seen màkka nga koy xulli say bët mbaa nga takk sa weer yu ñuul yi ne lu moo waaye xamal xamal naa la ko fii ndakaaru la kon gàcca jeex na conscience yi ñoo dee dañoo xaru Seydina Omar nag conscience am yedd ko nag bu mu toogee ci lal bi rek mu rus ci la commencé xool rek gis benn feuille sabbaha lillaahi maa fi samaawaati wa fil ardi moo ca nekk dem ba ne wa anfiqoo mimmaa jaalakum mustaxlafiina fiihi lum jàng rek xool bay gën di nooy mu ne leen wan leen ma sayduna muhammad ñu ne ko ci bu ñu la ko wanee ndax doo dal ci kawam di ko lor mu ne li ngeen li ngeen li ngeen màcc moo saf ci man maa ngi seede na dama ko bëgg a gëm ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah fekk njëkk nag ba mu jëlee téere bi doo jigéenam ba yore ko mu na ko jox ma ma téye ko mu ne ko déedéet sobe nga yaa ngi nii baga juddoo ba léegi mosoo sangu ba ndax deret jay daw ci moom mooy daw ci moom te kii nag laa yamassuhu illal mutahharun ca la dem nag sangu ji nag mu door koo jox fooy booba nag mu door a jàng nag ba mu jàngee rek la mu yëg ca xol ba mu yëg ko ca nag laaj yonent bi ñu ne ko ma nga safaa mu déparé fa foofa nag lay dem nag. fekk yonantu bi sallallahu alayhi wa ca biir xuntu mooma ca woon safa door a dugg ci diina ji kon ka ko doon rambaaje naan ko sa jigéen ba dugg na ci diine su ko wóoroon ne lii lay jur du ko def kon rambaaj noonu la mel la nga yaakaar ne mooy am rek safaanam ba mooy am kon maanaam euh, Omar ibnu Xataaba ngoog moom moom man ki saxaaba bay ci wàllu ngëm ndax ba mu gëmee ci la lislaam am doole ci lañ ko commencé di ko jullee ca Kaaba ga di ko manifester waaye njëkk muy tuub ñetti at lan lañ yonantu bi ak saxaaba yi buñ daan julli dañ daan nëbbatu léegi-léegi ñu nëbbu ca xuur ya ba benn bis sax dum naa bi waqaas fa lañ nekk di julli ab fekk leen fa ñu xeex ak moom ba mu jël benn ŋaamu gëléem dóor ko ko mu deretam ja tuuru mooy ki njëkk tuur deret ci lislaam moom sax du moo ko njëkk a def mu jigéen a ngi dem daaru ibnu arqam di fa jullee foofa nag lañ mujj di julli ci wetu Kaaba ga la nekk Arqam ibnu Arqam moo ko moomoon ku teel a tuub la juróom-ñaari at la xam dugg ci diina ji mu jigi xalifatu Mansour jënd place ba may ko benn doomam bu ngi tuddee Mahdiyu Mahdiyu mujj may ko benn euh, soxnaam bu ngi tuddee tu moo tax ñu mujj tuddee Daaru Arqam Daaru Xaysuraana ndeysaanam nag Xaysuraana moomu turu jigéen la jigéen gu barke la nag. moom kenn lañ xam ci lislaam mu jur ñaari xalifa moo jur Moussa Hadi waaye moo jur tamit Haruna Rachid kon kooku mooy xaysuraanatu mu jigi nag place ba mujj na jàkka ja lekk na ko dugg na ci biir kaaba gi ak jàkka ja leeraangoog lu ko dege lu ko jege mu wan la kaaba ga leer la jumaa ja leer la kër ya ko jege woon yëpp mujj nañ waanaam wan na leen dugal leen ci biiram kër abi lahab la fa baax mooy ki gënoon bañ a bi toroxtaane jàpp ko ba dugal ko safara jàpp soxnaam ma ko jàppale umu jamil ba dugal ko safara jàpp palaasam ba mu dëkkee woon di fa bañ yonent bi ba fu nii boo demee mooy duusi màkka ya boo demee ca kaw noona euh, mooy toilette yooya ngay gis mooy fi doon kër abi lahab kon yonent ku ko bañ da nga sa njaboot gotteeku sa soxna gotteeku sa place bi nga nekk tamit dana mujj gotteeku kon jullee ngoog yaa ayyuhan nabi hasbukallahu wa man tabaaka minal mu'minin kooku mooy Seydunaa Omar kon saaba yaa ngoog ndeysaanam kenn ku ci nekk ak maqaama bala yàlla jox ca wàllu woowa kon nag xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ci waxtu wii ma dugg ak yow lenn li nga xam ne sos naa koog yow ma sof koog yow ci wàllu julli waxoon na la aaye ca wàcc yi juróom benn fukki aaye la ak juróom tolloog lilaahi danaa la ci indil aayaat yooya yenn ya waxoon na la hadis ya ca wàcc yi téeméeri hadis ak juróom-ñaar fukk juróom-ñett la danaa la kenetri lenn ca ahadis ya waxoon naa la aasaar ya ca ñëw juróom-ñaar jëm ba juróom-ñett la danaa la indil tamit asar bu ne ak saxaabi yu ba ko wax wala taabi yu ba waaye loolu nag suba ci waxtu wi lay doon ci kartanal yàlla yàlla na yàlla bool defal ñu tawfiq bool defal ñu taysiir bool defal ñu naataangeeg barke in uridu ila al ma mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah alayhi tawakkaltu ilay unib wassalaamu salaam wa rahmatullahi wa barakaatu